waaye Sénégal ñoo taxaw pour xeex seen àq ak seen yelleef tey jii li am doonte ndam la mën nañu wax ne genn wàllu ndam la ndaxte inculpé et mis sous contrôle judiciaire encore Ousmane Sonko est entre les mains ce qui inacceptable et inadmissible le combat donc doit continuer pour qu'au-delà de cette affaire Ousmane Sonko, que tous les détenus politiques soient libérés. Mais également, xam ngeen ne Sénégal tey jii li am mooy Sénégal ci boppam ñoo taxaw pour xeex am ay liberté am démocratie donc loolu dañuy xeex ba mu jeex te bu neexee yàlla li nga xam ne moo xew tey day wane ne peuple sénégalais pare na pour taxaw pour xeex action de tous les détenus politiques au Sénégal mais surtout le combat va continuer pour qu'au Sénégal et de manière irréversible, nous puissions obtenir enfin l'expression des droits à la liberté, mais l'expression aussi d'une démocratie vivante, d'une démocratie au service du peuple sénégalais. Et que plus jamais, de manière irréversible, que quel que soit le président qui sera élu, qu'il sache que c'est le peuple qui décide. Et aujourd'hui, c'est une décision du peuple sénégalais que nous saluons. Nous félicitons le président Ousmane Sonko Nous remercions la jeunesse sénégalaise pour son combat et le combat du peuple va continuer afin que le Sénégal puisse être une terre irréversiblement ancrée dans la démocratie, la paix et pour le développement économique social de la nation. Mais bien évidemment, naturellement, le peuple sénégalais doit rester debout. Puisque vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une demi-victoire et nous allons nous battre jusqu'à la victoire finale, c'est-à-dire la libération du peuple obtenir tous ces droits. Et les droits du peuple sénégalais, c'est des droits inaliénables à l'expression des libertés démocratiques. Et c'est la raison pour laquelle nous nous battons et nous continuons à nous battre jusqu'à satisfaction du peuple sénégalais. di abonné fii si Tawfekh a jot moo leen a